tàggat gu yaatoo yaatoo soxal transport yëf yi nag daal di door ëllëg incha allah mu mel ni nag dawalkat yu bari yëguñu ko. dèjà ñun employé afti yi moom am na ñoo xam ne ñun boog ñu waa 58 am xam ne yëguñu ko xaw ma nag ñeneen. chauffeur bu ngeen bëggee jot seen doléance da ngeen di woo. teewul nag ñuy jànkonteel ay jafe yu bari soxal nag ci wàllum dem beeg dëkk bi concurrence déloyale ak ci anam yi nga xamante ni moom la ñu liggéeyee ak pëccëxoo gi ci am mu mel ni nag li ci soppeeku bari na. yaa ngi liggéey yaa ngi liggéey 16 heures de temps wala 17 heures de temps nga koy liggéey par jour loo xamante ni yoon bindu ko fenn. war na ñoo gestu surtout suñu président bu bees bii amul chauffeur Tata bu tabax kër amul amul baa nga am si li nga war a am baa nga am si oto wala leneen déedéet. comme dëkk comme comme dem di kay kay décharge bi ñu yor ñu jox ñu ko ñu nit ñu mel ak ñoom noonu rek. yaa ngi doon liggéey boo wàcc 5 heures mais mën a toog ko léegi da ngay obligé daw ba une heure du ngir yàngoo a càq-càq yi nekk fii di sonal waaye bu fekkee pëcc xoo dafa am nga yor sa oto bu weex nga yor oto bu xonq man ma sama oto bu ñuul taxi bi nekk fee doo xamante euh, daal affaire bi ban caractère lay am. leneen lu ñu naqarlu moo di li leen ñàkk boole ci waxtaan yi nga xamante ni nag moom moo soxal bànqaas bi ñuy yëngatu bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag jëwriñ gi El Malick Ndiaye dafa war a gën a sukkandiku ci yile ngir rek seen secteur gën a jaar yoon. wàññi kii bi technique bi. oto yi kenn waru leen bàyyi ñu yem leen neex mais nag règlement dafa war a am paas màggal ak gàmmo ak ak tabaski mënul nekk benn ak paasu tour ordinaire. muy changé parking automobile yi waaw mën naa nekk waaye tamit waaw gars yi dañ ciy nekk souvent da ngay am sa oto bu ñànkar nga dem ut say sa oto bu bees def ko ci mais finalement duñ la may jaam. ak yokkute accident de circulation yi ñu nemmeeku yile fan nag ñu bari ñu ci joxuñ baaraamu tuuma doxalinu dawalkat yi. naam nag bu ñu sukkandikoo ci ñilee ngir daal di koy moytu li muy laajte bariwul. oto yi nuy am ak tali yi nuy am fekk noo koy am jàpp naa ne nii lay demee. ñu ngi joxe état suñ leen signalé loo xam ne day daaneel oto nañu dem defar ko rapidement bala accident di am soo ko defarulee nag accident su amee yow la dañ la koy signalé soo waree dawal ay nit la ñu re soo yebee nombre oto bàyyi nga sa dix doom ker ga ak sa yaay sa papa kon bëggoo kenn gaañu si oto bi bëggoo kenn bokk mit si oto leneen di seen bëgg-bëgg. moo di jëw di El Malick Ndiaye gën a xoolaat anam bi muy communiqué. dama ko doon conseillé dama ko naan affaire bii ni muy waxee na koy wax ci tey moo gën forcé bi bu forcé ak réeroo lay